coalition Idy 2000 ay gor ñoo ko séq ay gor ñoo ko séq damay insité bu baax ci loolu ay nawle ñoo ko séq gor ak nawle buñ ko séqee bu dara amee dañ koy waxtaan man nag dama voyagé woon maa ngi door a ñëw xaw ma nan la demee lu tax nan la yi demee ba lii am xaw ma ko donc damay maandu ba ñu waxtaan ma xam nu mu demee bu boobaa danaa wax li ma xalaat. alors man toog naa ma dégg ñu ne euh, coalition de 2000 bi sey na ci kii déedéet. 2019 déedéet Idrissa Seck ñaar ñoo xam ne ci partem lañ bokk ci li ma dégg bokk nañ ci gouvernement bi keneen kan moo ci bokk si si si kii. am na ñeneen ñu ne consulté na leen ñu bokkul ci parti yow man de man maa ngi ci télévision xam bu bu foofu laa ko yëgee laa ko yëgee. Idrissa Seck gëj nañu wax balaa may jógee Ndakaaru te ay toog nañ lu yàgg sax waxuñu balaa may jóge Ndakaaru loolu moom mun naa ko wax parce que du fen boobu tax nag xam naa ne dañu dañu amul woon ay réunion mais daal loolu mun naa ko wax léegi nag lii xaw ma vraiment nu mu demee damay màndu ba waxtaan ma xam bu boobaa ma wax la ma ci xalaat. lan mooy ëllëg

ñu jox ma président commission UEMOA ma xam lu mu tekki ci suma réew parce que réew bu la sasee da ngay xam li la sa réew sase te dama bëgg lu may def rek mu sóor ci respecter sénégalais yi moo tax bëgguma sama làmmiñ ma génne ci loo xam ne fen la mun naa juum nag comme ñëpp mun naa wax lu dul dëgg sax mais ci damay bëgg toujours bu ma waxee lu dul dëgg sax mu nekk ci njuumte voilà léegi nag lii am na bu ma demee ba waxtaan danaa xam.